parcours yi nim day wax dëgg yàlla xaw ma ci. Hmm. lu weesu saa bu amee costume bu bees def émission bu bees sos sos yu bees. jërë ngeen jëf mbokki eh, internet yi gannaaw bu ñu leen nuyoo ñu ngi leen di eh, jaajëfal yéen ñu ñuy teewlu ci seen bi di Nar Actu dal leen ak eh, dal di jibati jëm ci ki nga rek président Ousmane Sonko mi nga xam ne nag ab député ci assemblée nationale moo dal di yëkkati ay kàddu yu tuuma dal di koy teg ci ndoddul Ousmane Sonko di wax ne rek moom président Ousmane Sonko mii rek da doon jot ay financement yi nga xam ne rek da doon jóge foofu la ca bitim réew di kaddu ya nga xam ne nag député bii di wuyoo ci turu Matar Diop moo dal di yëkkati kaddu yu ni mel la foofu la ca assemblée nationale la waxee kaddu yu ni mel ne rek ki nga xam ne moo di président Ousmane Sonko. da doon jot ay financement ya nga xam ne rek da doon jóge foofule ci bitim réew di kàddu yi tuuma ak sos ya nga xam ne rek daal dina koy sosal ki nga xam ne moo di président Ousmane Sonko mile mu daal di ko koy sosal rek ne kii di président Ousmane Sonko da daan jot ay financement ya nga xam ne rek da daan jóge foofile ca bitim réew te moom mii di wuyoo ci turu Matar Diop di député ba mu waxee kàddu yu ni mel indiwul lenn rek la nga xam ne firndeel na ne kii di président Ousmane Sonko mi nag da daan jot ay financement ya nga xam ne rek da doon jóge foofu la ca bitim réew loolu la nag moom Matar Diop ko wax rek daal di sànni ndax rek amul lenn la nga xam ne rek daal di na koy indi comme firnde ne lii nag mooy firndeel ne kii di président Ousmane Sonko mi nag jot na ay koppar ya nga xam ne rek daal di nay jóge foofu la ca bitim réew. ca noonee nag kii di Cheikh Yérim Seck ak Madiambal Diagne ñoom nag ña ngay dëggal. la nga xam ne rek moom la député bii di Matar Diop dal di wax ne ki nga xam ne moo di président Ousmane sunk moom daal daal di jot ay koppar ya nga xam ne nag bitim réew la jóge ñoom ñi nga xam ne nag ñoo ko dëggal muy Cheikh Yérim Seck ak ka nga xam ne rek moo di Madiambal Diagne ñoom ñu ne nag fan fenn rek fa nga xam ne ni daal di nañu fay sukkandiku lu dul ci li nga xam ne nag moom la Matar Diop daal di wax foofee rek lañ daal di sukkandiku waaye nag sukkandiku wuñ feneen fu dul ca wax jooje nga xam rek moom la député bii di Matar Diop daal di wax fa lañ sukkandiku te naan nañu tijji ab l'enquête daal di mbir naka la daal di